li fi ci xibaar yi mi ngi noonu tey jii leen koy indil fii ci Opinion TV bokk na ci Cheikh mohammed al muntakhal bashir jox gi nga xamante ne jox na ko xalifa général de Baye Fall ndigal li mooy li nga xamante ne mooy àq ak yelleef fi dëkk bi kenn dut fi politikati bokk na ci tamit wa nga xamanteni moy wa waa wa fa faj bi mu dikkon ci am Mouhamadou Mountakhal Basir. ngir jambar ko seeni soxla ak jaa ya, ak jole bi nga xamanteni mom la leen de la republique def ak wa senegal ngir coupé seenub ci ñaan ak weeru yalla waye batay tey na ci loolu nonu li ci gëna fess batay ji moy Ousmane Sonko mi nga xamanteni ni na ni le nga xamanteni mom lañ bëgg tek ci ndo dam ngir waxtaan ak ñi nga xamanteni moy kilifa yi ngir mu mëna waxtaan ak Macky Sall dañ na ko ni su ngeen bëggee mu am nak da ngeen di dindi li nga xamanteni moy bi ngeen tek ci kawam beneen ba tamit mooy li nga xamante ni mooy barricade bi ñu barricade këram jaat koy dindi man ko may ay àq ak yelleef fa mu mën a circuler ci réew mi li nga xamante ne noonu la ko soobee ba tey bokk na ci loolu xalifa général de Mouride daal di àgg na si sax daal ne lépp loo xamante dafa nekk yëngu-yëngum politique wala loo xamante dafa nekk ay meeting wala xumbaayee ko mumbaay ci réew mi nga xamante ni dëkk bi nga xamante ni mooy Touba dañ ko fee interdit dem na ba ci àgg sax daal nga xamante ni mooy bureau de vote yi ñu fi defoon nga xamante ni nit ñi daal dem di vote ji saa yoo xamante ni élection dikk na loolu kat mel na ni dañ koo interdit léegi ci dëkk bi ni bureau de vote yi yëpp dafa génn bi fi waa Walfadjri dikkee nag di ko jàmbat li nga xamante ni nekk seen signal ba nga xamante ni atum yàlla weeru yàlla lay doon Cheikh Mouhamadul Mountakha dalal na leen ne njabootu Sidy Lamine Niass sama njaboot la waaye dolli sa daal leen a jox ak ndàmpaay gu toll ci juróomi million dane leen su ngeen àggee na ngeen toog te déglu ma waa yi safoo ak di topp seen seen mag bii di Union TV lii mooy li nga xamante ni moo gën a fës ci ëttu yéenekaay yi nga xamante ni am ci dëkk bi ak li war di leen wax ne na ngeen déglu ñu te ko di abonné ak di ko tos cloche notification bi ngir lépp loo xam ne wàcc na ngeen mën koo jot jërë ngeen jëf